mooy qu'est-ce qui ne va plus avec Bombardier. qu'est-ce qui bi mu nekkoon il est il veut il voulait sortir la grande porte. Hmm. et peut-être par la grande porte par honneur yi ngi koy jox parce que nekk na roi des arènes deux fois. Hmm. mais dafa teg li trois ou quatre défaites ci fin de ak ay jeunes loups yoo xamante ne dañu ñëw chambouler jóge ci peut-être première ou deuxième antichambre bi. Hmm. entre ñoom ak seen Euh, euh, conflit de génération la. Hmm. laa bëgg wax parce que génération bi nga xam ne moo topp ci ñoom Balla Gaye hmm. ñoom ñoo ñoo bëgg chambouler ñii leen jiitu. Hmm. parce que Reug Reug ak Franc dañoo xaw a tëb ñoom Balla Gaye même bu ñu bokkul ay palmarès dem bëreeg bombardier donc il sont obligés de xaar wala bëriwaat seen biir. ba mën a bëriwaat ay ñoom Modou Lô ay ñoom Balla Gaye mais boo xoolee qu'est-ce qui ne va pas toujours pour bombardier moom laa doon wax léegi ak coach dafa mel ni un basketteur peut-être mën naa ko wax. au ci digg carrière c'était difficile pour nu ñi wax ko wala secret la un poids lourd kii se déplace su fekkee dafay déplacé wu comme ni ñu doon wax sànq ci motricité ak mobilité bu fekkee dafay am foofu te àndul ak calcul mental rek. Mhm. mental bu foor bu yaatu toujours day am problème. Mhm. parce que c'est un géant qui mesure presque deux mètres. Mhm. et qui fait plus de cent quarante kilos. et euh, équilibre bi mu war a am wala proportionnel bi mu waroon taxawee dafay tuuti ci boo xoolee ci suuf jëm centre de gravité bi bombardier lu muy gën a wàcc ngay gis muy gën a amee siiru ba au niveau de ses pieds mi taxawee parce que boo xoolee euh, analyse yi ñu def avant combat bi maa ngi ciy wax naan la Franc bombardier pour nga daan ko il faut nga mobile il faut nga bouger ko déséquilibrer ko pour mën ko daan parce que taille bi bu taxawee day am déséquilibre mm. te poids bi fi mu gën a basculer wu dem ci loolu bu fekkente ne ci wàllu préparation physique wala entraînement liggéeyoo li ñuy wax grit wala wala wala wala du hit mm. high intensity interval training boobu mm. des entraînements à haute intensité par intervalle mm. il faut nga am ko te mbër yu bari dañ ko manqué ba ci seen fin de carrière da nga koy gis il faut nga boole cardiovasculaire ak cardiomusculaire mu mën a tolloo benn bu ci wàññi sa moroom rek ci combat dafay feeñ et on a vu que en fin de carrière mu ngi bàyyi xale yi booy génération bu mujj bi ñu ngi utiliser loolu dañuy gis failles yi pour mën ko daan ci côté boobu. Ah, donc bu doon mbër la bu nekk ci diggu dooleem. dañ ko naan na amaat beneen mental bu gën a foor beneen concentration bu gën a mag mais bon mi ngi fin de carrière aussi day may ay rakam chance donc dañuy utiliser failles yooyu rek pour di mën a am victoire ci moom.